c'est bon salaamaaleykum euh, cher internet de Sénégo ñu ngi leen di nuyu bu baax euh, di leen dalal ci seen site donc euh, tey nag dañ fi am invité duñ ko présenter parce que sénégalais yu bari xam nañ ko donc xam nañ ko ci yenn plateau yi mais aussi oustaz la boo xam ne ne oustaz jeune lañ ko mën a wooyee parce que il est très présent sur les réseaux sociaux surtout nag ci euh, réseau bi ñuy wooyee TikTok muy répondre si suñu question yi muy oustaz boo xam ne nag du tànxam lu tamit benn question ak noo mënti tol ak question bi tamit nu mu mënti tol dina la tontu donc oustaz ñu ngi lay nuyu bu baax di la dalal ci sénégo yegg si si jàmm. waaleykum salaam wa rahmatullah soxna si ñu ngi lay fay nuyoo di nuyu téléspectateur yëpp. di am mbégte di kontaan ci euh, ñëw biñ fi ñëw seet si leen mm-hmm. euh, d'accord Oustaz tey nag ñu mm-hmm. nekk euh, ci journée mars mm-hmm. waaye ñu bëri tamit démb am na ñu ko féete ñu ne ñu ngi woon ci talaatay ndeer mm-hmm. comme fan yi ñu koy faral dañuy wax journée 8 mars journée internationale mm-hmm. mais mm-hmm. talaatay ndeer aussi ñun dañ ko war di feete moom la ñu jël comme suñu journée ndax jigéen ñooñu jigéen bañkat yooyu euh, nan nga gisee loolu waaw macha allah xam nga dañuy wax ni ku baax ku nekk jigéen la jur te yàlla moo njëkk fonk jigéen kon yaakaar naa ñi suñu yàlla joxe jigéen ñu mel noonu ñu nekkoon macha allah ay modèle nekkoon jigéenu bañkat jaadu na tam seen feet ñu feete ko 8 mars nag bés la boo xamante ni euh, damay wax ni warul yam ci ci 8 mars at ba at képp ku yàlla jox wayjur war nga di ko di ko di ko sargal war nga di di def ci moom teraanga ku yàlla dénk soxna ku yàlla dénk ay jigéen war nga fexe ba ñuy bég saa su nekk buñ ko yemal rek ci feet 8 mars mm-hmm. Mm-hmm. tuuti ndax tey da ñëw seet si ñoom mu tombé 8 mhm. waaye am na ñu xam ne xam nañu oustaz waaye am na ñoo xam ne aussi peut-être à mhm. mhm. ñu la bëgg xam dëgg dëgg kan mooy oustaz mën nga ñu wax un peu sa sa parcours. ah allah soxna si nit moom def naa soo koy laaj ci boppam yomb na mu tontu yàlla dogal na doomu soxna lañu suñu wayjur nekk kilifa diine ci réew mi. ñu nekk sët ci góor gi alxaaji Tidiane Niang bu Ndar nekkoon mu muqaddam Serigne Babacar Sy mu jur suñu jur ñu juddoo Ndar defa suñu enfance Ndar yàlla dogal tam ñu jànge fii ñëpp jànge def suñu étude macha allah gëstu tam foo xamante ne rek yaakaar nañ fa jële fa xam-xam dem nañ fa gëstu ji donc yàlla dogal na tam ñu jaaroon ci mag mu baax ñuy wax ñu koy wax góor gi alxaaji Moxsin Diop ku dëkk Ndar defe naa dégg ko wala nga wala nga miin ko ay bëri na ci réew mi ñoo xamante ni macha allah ay kàngam lañ ci alquran nekk ay xaafidul quran ci loxoom la ñu jaar yàlla dogal tam mu jàngal ñu yar ñu ñaanal ñu yàlla yeewi ñu kon tabaarakallahu ci li gën a gàtt ci suñu ndaw foofu lañu jaar. Hmm. Euh, ñu gis aussi Oustaz que da présent euh, trop ci li nga xam ne moom mooy TikTok déjà. TikTok rek nga am wala am nga Facebook Instagram am nga yooyu yëpp wala TikTok rek nga waaw xam nga dañu toll ci jamono boo xamante dañuy wax ni lépp mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi dox ci internet donc foofu la jamono toll loolu moo tax euh, ñu ñu jël lépp lu ñuy def macha allah ñu koy jaaree ci réseaux yi du du TikTok rek comme ni nga ko waxee euh, lépp lu ne réseaux sociaux la tabaarakallaahu euh, suñuy activité ñu ngi koy jàllale foofu waaw lu mel ne Facebook Instagram ak yëpp macha allah ñu ngi fay def suñuy activité ah mais dañu taamu nag TikTok ndax gis nañ ni mooy li gën a gaaw ci ci ci ci jàllale sa message wala vidéo yi def boo bëggee nit ñi suivre ko mu doon lu gaaw macha allah moo tax ñu préféré li ëpp vidéo yi ñu koy dugal foofu mais day day dem fépp ba ci YouTube donc suñu activité day jàll foofu. Mm-hmm. ñu gis ni aussi euh, am na benn moment boo xam ne dañu gisoon ay ndaw yu bëri ñoo xam ne ñu woon ci TikTok bi di ñàkk seen bakken ñu dem ba benn instant sax am ay nit yu génn. naan na xale yi wàññi TikTok bi parce que ren dina am ndaw yu bëri yoo xam ne ñu ngi ci TikTok bi fës fa dinañ génn dañuy génn àdduna nan nga gisee woon wax yooyu est-ce que dëgg la wala juste que gars yi dañuy wax noonu rek. Mm-hmm. waaw soxna si xam nga dafa am loo xamante ni bu fekkee jullit nga nga gëm yàlla di nga xam ni dee moom ci loxo yàlla la nekk te alquran moo ko wax yàlla moo wax ni euh, waxtu wi nga fiy jóge bés bi nga fiy jóge loolu yàlla xamalu ko kenn loolu xaybu yàlla rek moo ko xam. donc damay wax ni bëri na ñoo xamante ni ci seen xalaat la ñuy wax maanaam dañu jàpp ni li ñuy wax luy nekk la waaye loolu yàlla déyu ko kenn te itam wax dëgg yàlla euh, ki toog di la wax loolu moom xamul sax kañ la fiy jóge donc yooyu wax dëgg yàlla nekkul lu ñu war a gëm aha nan ngay gisee aussi foo tàgge yi nga xam ne ne dañ koy tàggee ay nit ci TikTok bi diw deena diw deena gars yi di ay mbokkam def nañ ko fi nekk ñu bari Ah, ba ci yaay sumbulu ak ñeneen ak ñeneen suma ma limee damay juum ñu leen di tàggee alors que deewuñu nan nga gisee loolu. waaw soxna si loolu lu doy waar la xam nga nit kuy dund faatuwul nga annoncé deewam am ñoo xamante ni métti na leen wala euh, maanaam jaaxal na leen képp ku koy def rek yaa ngi def loo xamante ni lu doy waar la ndax loolu jullit du ko def maanaam dee kenn du ko fowe kon bu ñuy jël ay doomu aadama di leen tàggee ba ñëpp tiit wala ñu jaaxle ci. ndax ki koy def booy xool du way juram du tàgge ay bokkam ay jàmbur la koy def loolu nag àq la boo xamante ne dox na ci sa diggante ak ki nga ko def te bu la ko jéggalul yàlla du la ko jéggal soxna si kon loolu doy waar nañ ko moytu. ñu gis ni aussi euh, tout le temps si commentaire yi saa yoo defee vidéo gars yi dañuy commenter di la laaj pour nga firi leen li nga xam ne moom mooy seen gént mais dañu gis ni même question yi gën a banal sax da nga koy tontu jël sa temps. ak énergie di di tontu si question yëpp. waaw macha allah soxna si xam nga dafa am loo xamante ni euh, maanaam dafa jar bàyyi xel muy nit ki su fekkee yaa ngi yaa ngi yaa ngi wax ak ñoom da ngay fexe ba ba communication bi di jàll. tey boo toogoon di wax ci wàllu tawxiid wala ngay wax yenn yenn branche ci ci xam-xam amaana duñ la déglu te laaj yooyu ñu lay laaj donte am na ci yu terre am na loo ci mën a jànge maanaam nit ki mu laaj la nga tontu ko lu mu lu mu néew néew lu mu gàtt gàtt lu mu suufe suufe ci tawxiid am na lu mu la mën a jàngal te tam loolu dafay def approche ci ñi lay déglu ñu bàyyi xel ci li ngay def moo waral lu ñu laaj rek ñu tontu ko léegi la si ni dalay laaj nga xam lim la lim lay laaj eh, amaana amul fu mu ko teg mais di nga ko tontu ci anam boo xamante ni maanaam boo bàyyee xel ci li nga koy wax am na loo ci mën a jëlee donc loolu moo tax te tam ndaw ñi da ngay fexe macha allah taala nga jaxasoog ñoom. malgré léeg-léeg li ñu lay laaj mais looloo ci gëj moo ci gën a am solo moo waral toujours lu ñu laaj rek wax dëgg yàlla danañ ci jëm tontu du nag lu xam dañuy jël temps ndax da ngay xool benn vidéo dañ ci def ay ay mille et quelques commentaires donc da nga ciy jël ñaar ñetti tontu bu doon da ngay tontu yëpp amaana sa temps yëpp yaa ngi koy def ci tontu ay vidéo mais lu gàtt lay doon. Mhm. voilà ñu gis ni sax ba ci commentaire yi da ngay jékki-jékki ku jigéen ku commenté oustaz dama bëgg a jëkkër te xam nga loolu du gént dafa mel ni am na sax xam nga des des fois am na ñuy xaw a sax dévier bëgg a wax li ñu day am lu ñuy bëgg a wax mais duñ la ko bëgg a wax directement donc dañ dañuy jéem a wiiri wiiri genre commentaire yi yooyu aussi nan nga koy recevoir waa xam nga ki lay wax moom ki lay laaj question day laaj rek moo xam mu dëggu ci moom wala mu bañ a dëggu wala aussi muy wax soxlaam ndax tam nit dana la laaj fekk mi ngi annoncé boppam am na lu mu bëgg junju wax dëgg yàlla am na tey ñoo xamante ni seen sëy ci ci wax ci ci vidéo yi la jaar te mosuñu toog wax ko suma ma juumul xam naa ci ñeenti soxna yoo xamante ni ci suñu commentaire ci ci la yàlla dogal ñu jaar fa sëy te loolu aussi dañ ciy sant yàlla xëy na ki ki ki lay laaj loolu wala kiy wax loolu amaana bëgg na borom kër ñàkkul ni aussi ñi lay teewal wala ñi nga te ni ñu ngi lay bàyyi xel am na ci ñu bëgg soxna donc loolu yàlla def na ci ñoo xamante ni sëy am na ci seen diggante loolu moo waral question yu ñu laaj rek suñ ko mënee tontu dañ koy tontu Mm. ñu ñëw nag ci ci côté oustaz si aussi euh, ndax dafa am benn émission buy am télé euh, ku si mel ni oustaz Modou Fall ak Pape Cheikh souvent ñuy waxtaane ci diine mais ñu bëri aussi dañuy naan dañuy jël diine bi di ko di di ko café wala affaire yooyu yow bu nekkee yaa ngi seetaan émission bi wala des fois di daje si TikTok bi yaakaar nga ne niñ koy defee jeunes yi dinañ ko capter dina teel a dugg seen nopp wala da nga yaakaar ne comme ñeneen ñi niñ koy waxee négativement dañuy foowee diine bi ban gis-gis nga am ci émission boobu. Mm-hmm. waa xam nga nit su fekkee mi ngi jàngale li muy jàngale génnul génnul génnul génnul charia génnul génnul l'islam li muy wax tegu na ci xam-xam loolu munoo ko bañ. dafay fekk nag euh, niñ koy niñ koy recevoir maanaam ki ngay déglu ni ngay dégg li muy wax. li li ñu xam ne mun l'islam du ko nangu mooy nga wax loo xam ne ni génn na ci lislaam donc émission la peut-être ci fànn boobu ñu koy defee mooy permettre nit ñi di ko seetaan amaana ñoom ci loolu ñu ci jublu mais li ñuy li ñu ci soxal rek mooy eh, ustaas bi toog di jàngale su fekkee li muy jàngale teg naka ci lislaam ci diine loolu du am problème ndax lépp lom xam ne diine la rek mën nga ko jàngale donc dafay dépendre ci ci ci ci méthode ak fànn bi nga koy jàngalee amaana nag xëy na ñoom xool nañu ba xam ni loolu Euh, buñ ko defee ndaw ñi danañ ci danañ ci bàyyi xel wala ñi seen ñi leen di seetaan danañu mën a continuer di seetaan émission bi mais ñun ci li ñuy tënku rek mooy li muy wax ba xam tënku na ci diine wala tënkuwul ci diine loolu moo ci am solo soxna si bu ñu fa jógee dañuy ñëw ci li nga xam ne moom mooy sport mhm. euh, toogoon nañ ay ati at mhm. yoo xam ne ne mosuñu gagné li nga xam ne moom mooy coupe d'Afrique mhm. ñu bëri aussi doon ne mit la rek ndax Euh, yiñ doon dugal suñu bopp yi mhm. que coupe bi mhm. du mës a dugg ci Sénégal ndax mhm. am na ay borom xam-xam yu waxoon lii wala yu waxoon lii tey Sénégal euh, gañe li nga xam ne moom mooy coupe d'Afrique bi mais ñi topp si ñoom aussi gagné ba ñi gën a ndaw instant bi ñoom dem nañ ñoom it final nan nga gisee loolu noonu ci côté sport bi waaw xam nga euh, sport dañuy wax ni wala boog ñun li ñu gëm Sénégalais yi mooy mystique moo koy doxal mm. déedéet am na ñoo xam te ne ñooñu ëpp mystique foofu mel na ay Bénin wala nga dem Inde te amul lu ñu mën a lu ñu loo xamante ni gañañ ko ci ci ci sport ci football. donc xëy na liggéey la woo boo xamante ni ay ay at maanaam équipe équipe nationale ñu ngi ko doon liggéey ak ak fédération bi xëy na yàlla mi ngi doogay def liggéey boobu doogay sotti mais li ma gëm man te xam ni euh, euh, euh, bu fekkonte ni pare ci football physiquement ak leneen ak leneen amaana trophée bi duñ ko jël. donc bu ñu xoolee ni Sénégal jamono yi xëy na li ñu doon liggéey ci at yu baree bare yàlla def na tey la doogay sotti mooy waral donc jël trophée du du nekk lu compliqué mais tey bu ñu ko tegoon ci mystique rek cent ans bañ jël coupe d'Afrique te te gis nañ ci dara ci ci ci mondial weesu donc ñi ci doon wax ñëpp ak lañ ci doon wax ak li am dafa mel ne yàlla ak yàlli donc football ak mystique maanaam jotewuñu dara nit nag mën nga ñaan yàlla waaw mën nga ñaan yàlla li yàlla yombalal la ko mais li ma gëm daal mooy liggéey la boom xam te liggéey bu yàgg la yàlla def na mi ngi doogoy sotti dooy xool macha allah lépp yàlla da ciy def feex du nekk luy compliqué. Mhm. Euh, am na aussi ay sëriñ yoo xam ne souvent dañuy toog naan diw euh, làmb bu amee. Mhm. diw dina daan diw wala match bi. Mhm. Euh, nii nii lay demee. souvent yow da ngay faral di def loolu wala bokk si ñi <laughs> loolu par parier la rek maanaam ñi koy def en général booy xam dañuy dañuy parier xam nga dafa am loo xamante ni. bu fekkee da nga ko da nga xam gëstu ko. boo ci wax da ngay xam bu baax li ngay wax. xëy na nag yàlla am na ñu mu defal xëy ba am na am na ñu yàlla may ñu ñuy xam lu ñëwagul mm-hmm. mais itam bu leen ko yàlla dénkee itam dañ koy jël di ka di ka di ko doxale noonu ki ki ko yàlla dénk tal na leneen lu dul wax ci ci ci làmb wala ci leneen mm-hmm. waaw loolu maa la ko wax ki yàlla dénk baatin dëgg-dëgg mm-hmm. tal na leneen lu dul wax ci sport ndax am na lu lu ëpp solo loolu muy dugg donc ñi ciy wax ñëpp xëy na voilà foofu lañ toll ak ci jamono bi ñu nekk ak li ñuy doxal donc liggéey bi ñuy def daf leen permettre ñuy wax yu mel noonu su ko defee bu amee rek danam am la yóbbu Mhm. ñu am benn influenceur bu génn àdduna récemment ci semaine bi mu tuddoon këndëng mhm. donc xaw ma ndax xam nga ko malgré mhm. yaa ngi ci TikTok bi donc ñu ñu ñu yëg ni euh, bi mu euh, defee accident si la ñàkkoon bëñam yooyu ak ba pare tànk yi dafa am ay feer yi ñu ci dugaloon récemment nag feebar bi yëngatuwaat donc ñu ko doon ketal biñ ko ketalee ba mu am quatre cent mille ki nga xam ne ne moom moo moom moo ko ketal mujjeewu ko jox xaalis bi këndang génn na àdduna Euh, yàlla lan la wax ci loolu parce que tey am na ñu bëri ñoo xam ne ñu ngi ci réseaux sociaux yi dañuy joxe numéro wala dugal nit ku feebar mm-hmm. Mm-hmm. di kettalaate mm-hmm. mais ñi ñuy kettal du ñu mës a jot ci li nga xam ne moom mooy xaalis bi wala seen njaboot duñ ko jot waaw loolu weesuwul jubadi weesuwul ak euh, def naka noonu te xam nga ñii dajale seen dërëm ak ñaar dërëm jox la ko ngir jëmm jooju ngay wax kooku xaq la boo xamante ni boo ko lekkee du la feeñ fenn mm. te daf lay leen ëllëg di nga ko fay képp koo xamante ne yaa ngi wax ci turu nit te la ngay wax ci yow lay yem na la leer ni àq la bu lay topp maanaam du da ngay faatu rek gis ko da nga koy gis fii ci sa dund kon nañ bàyyi di lekk xaq doomu aadama yi wax ci nit loo xamante ni amul ngir ay koppar loolu dara jaru ko mhm. oustaz ñu ngi waajal koor mhm. daaw ñun ak catholique yi mhm. ñu ñoo woorandoo woon mhm. ren aussi même bu nekkee woorandoo wuñu tamit dinañ euh, suñu koor yi dinañ dinañ daje dinañ woorandoo quelque jours donc nan nga li nga xam ne moom mooy cohésion bi ñu bi nga xam ne moom am waa xam nga dafa am loo xamante ni boo génnee tuuti ci sous-région ci ngay xam ne ñun am nañu lu lu jafe ndax da ngay gis chrétien bu sant Ndiaye wala mu sant Guèye wala leneen li koy waral mooy am nga maam wala askan woo xamante ni ñii jullit lañu ñi chrétien lañu loolu yàllaa yàllaa ñu ko defal mm-hmm. te nag chrétien yàllaa leen bind ndax alquran moo ko wax yàlla dafa bind jullit bind kudul dul jullit mm-hmm. kon mën nañu seq jàmm ak salaam te loolu lu yàgg la ci réew mi te gëm naa ni incha allah kanam la jom mm-hmm. moo tax amuñu problème ci côté boobu mënoo xàmmee kii jullit la dudul mu pratiquer diineem donc Sénégal chance boobu la ñu am par rapport ak tey yeneen réew yi boo fa demee euh, maanaam problème yi ñu am seen biir ak xeex ya fay am te wax dëgg yàlla ñu mucc si kon dañu war a sant yàlla sant suñuy suñuy kilifa yi nga xamante ni tabaarakallaahu liggéey nañu loolu ba amuñu problème ak benn benn chrétien. Mm-hmm. Mm. Euh, Nimz moom moo amoon benn question. Ah. ndax dafa am ay artistes yoo xam ne dañ leen xam fii ci Sénégal. Mm. ñu nekkoon jëkkër ak jabar. Ah. ñu tas bi ñu tasee nag mm-hmm. dégg nañ tas nañ ñetti yoon. Mm-hmm. bi mooy seen ñetteel yoon. mais sénégalais yu bëri nag dañu bëgg diggante boobu tellement. ba tas bi da leen laal. est que am na solution boo xam ne mhm. moom la mën a teg ba waa xam nga sëy tas ñetti yoon ñoom mënatuñu sëy gannaaw baada zawji tey ndaw si bu amee borom kër ba tàggoog borom kër googu sëy mën na fa amaat mais tant que moom takkuñu ko ba mu tas du mën a sëy ak waa ji ndax ñetti passé fa lay yem. Mhm. te tam sëy boobu tam du nekk lu ñuy lu ñuy combine maanaam waxanteeg nit ki rek takk ma quelque temps ma fase mën a déedéet. Ah, waaw déedéet déedéet. Mhm. kon loolu daal mooy solution bi mooy solution bi waaw kon di mën nga mën mën mën nga takk miya après boo paree sanwaay demaat donc oustaz suñu dernière suñu dernière question mhm. euh, dafa amoon benn euh, sëriñ laa ko mën a tuddee mhm. mu waxoon fi benn wax aussi mhm. mu ne nit mën nga ñu baal ma ci kàddu bi mën nga ëmbal jabaru jàmbur ñëw tudd ko boo paree nga dem sa yoon Ahmed Khalifa Niass moom moo ko fi waxoon est-ce que mhm. ñu bëri nag ne loolu du lislaam wala contre di la mhm. est-ce que mën nañ xam ndax dafa am téere yoo xam ne ne mhm. yoo xam ne dafa am yu ñuy jàngale mm-hmm. yoo ne yooyu duñ ko jàngale Sénégal mm-hmm. wala së wala moom peut-être fu muy jàngee mm-hmm. ak sëriñ yi nga xam ne ñun wala suñu ustaas yi xam bi ñuy kii du benn ak moom fu muy jàngee parce que tout le temps bu génnee rek boo xee nit ñi dañuy tëj seen gémmiñ mais am na ñeneen ñoo xam ne ne boo waxtaanee ñoom aussi dañ la mën na am moom téere bi la ko jàngee wala téere bi la ko jàngee lan lan nga ñuy leeral ci loolu waa effectivement xam nga euh, xam nga ñun Sénégal dafa am ngir boo xamante ne ci la ñu tënku boo xasee tënku ci ngiir ci li ngir go nga tënku ci ngay aju du tey da ngay tënku ci comme tey ñun imaam Malik moom la ñuy moom la ñu tënku moom la ñuy roy donc mënoo tënku ci imaam Malik xëy suba dem tënku ci beneen ngiir ngiir yi nag dañoo bare du benn ngir du ñaari ngir ngir yu bare lañu donc loolu moo tax bu fekkee yow da ngaa tënku ci beneen ngir gu bokkul ak suñu ngiir ngir gu ñuy tënku ci réew mi dangay wax loo xamante ne daf lay jaaxal ndax du looy jàng du lom da nga koy xam yaa ngi dégg donc am na ci ngir yoo xamante ne boo demee ci dëkku naar yi booy xool ñoom ni ñuy pratiquer l'islam ak ñun dafa wute loolu ndax ci ngir yi ñu tënku la waaye ñun Sénégal xam nañu mag ñëpp ci benn ngir la ñu tënku woon donc bu fekkee li ngay jàngale tënkuwul ci ngiru imam Malik daanaka day nekk wax boo xamante ni kem lu mu wax maanaam duñ ko xam duñ ko mën a dégg te nag boo xasee bu nekkoon ci beneen dëkk mhm. waaw bu fekk valable foofu waaw bu fekk ci téere boobu lañu waaw bu fekkee ñi tënku ci ngir ci ci téere boobu la ñuy tënku mhm. maanaam li ñuy tënku rek ñoom loolu la ñuy loolu la ñuy def mhm. kii moom daf ñu yónnee laajam mhm. moom nee na mhm. euh, dafa am ndaw soo xam ne ne daf ko bëgg a takk mhm. waaye mu wax ndaw si jot nañ xamante déjà xamante c'est pour rafetal wax ji mais xam na li ndaw si woddoo est-ce que mën na ko takk ce que takk boobu valable sëy boobu xam nga ni sax dinga am ak moom doom yaa ngi dégg nga takk ko nit mën nga am ak moom doom gannaaw doom ji sëy am seen diggante teewul sëy boobu mu ngi valable ndax gis nañ ko fi ba tàyyi ci réew mi am ak nit doom ba noppi takk ko l'essentiel mooy lañ defoon moom dafa xaram sëy boobu dafa xaram loolu mënta dagan loolu bàkkaar la bom te ni voilà kooku bàkkaar la bom te ni yàlla mooy xam ndax dana leen ko jéggal wala du leen ko jéggal waaw mais bu bu bu sëy amee rek maanaam bu ñu takkee sëy bi loolu dagan na ñi xam ne nag ñoom ñoo nekk ci tiktok bi mhm. di saaga kilifa diine yi mhm. euh, loolu ban ban gis-gis nga am si loolu oustaz waaw xam nga saaga moom lu ñaaw la te wallahi ñi koy def ñëpp booy xool fa ñuy mujje du rafet waxuma kilifa diine de ndax ñooñu seen martaba rek mën na mën na leen alak booy xool du duñu duñu ñu duñu duñu baax la ci seen àdduna nit ki simple rek nga nga nga nga jël ko affiché ko di ko wax lu ñaawal di ko daggal loolu bàkkaar la boo xamante ne daf lay topp donc saaga dafa warul benn jullit wax ju ñaaw ndax li ngay teg ci yaayu jàmbur bàyyi sa yaay day wane rek respecté woo sa wayjur ndax ku respecté way juru jàmbur doo doo sa way jur doo doo saaga way juru jàmbur kon kilifa diine yi moom na leen leer ni képp kuy toog di leen saaga wala di leen ŋàññi wallahi la adim da nga ko gis bala ngay faatu waaw loolu amul ma dem te ñëw ndax ñoom yi ñu nekk nekkuñu ci ci jaamu yàlla ñu nekk ak defar nit ñi ak def lu baax hmm. donc lan lan mooy seen yoon ba ñu dugal leen ci yooyu donc loolu lu mën a ñàkk la dañu dañu yaakaar ne l'islam mm-hmm. Mm-hmm. atte bi muy atte jigéen du mm-hmm. atte boobu lay atte góor euh, da ngay gis euh, ku jigéen koo xam ne ne dafay am jëkkër ba pare waaye day dem di njaaloo waaye ñu gis aussi lu bëri ci góor ñi dañuy am ñaari jabar ñetti jabar ba ñeenti jabar waaye dañ leen fay teg tamit di dem njaaloo boo waxee ñu ne góor la garaaw moom mën a génn waaye jigéen euh, amul am da nga war a toog sa biir sëy est-ce que ñoom ñaar ñoo yem àtte gis nga soxna si atte njaaloo mënta weesu atte njaaloo bàkkaaru njaaloo mënta weesu bàkkaaru njaaloo góor jigéen mag ndaw lépp lu ci waay def rek bàkkaar la boo xamante ni yàlla bu la ko jéggalu dana la mbugal ëllëg donk du ci loolu mënta nekk mm. lim xaraame ci ku góor ki noonu la xaraame ci ku jigéen ki mm. donc ku ko def rek muy góor muy jigéen xëy na nag dañuy wax ni jigéen moo war a gën a sàmm boppam mais bàkkaar yi moom mënta weesu bàkkaaru njaaloo bakkaaru njaaloo mënul weesu bakkaaru njaalo xëy na nag jigéen lañ jàpp ni moom moo war a gën a sàmm boppam mais jigéen ni mu sàmmee boppam góor tam noon la war a sàmmee boppam jigéen ni mu waree bañ moytu njaaloo góor tam noonu la war a éviter njaaloo te képp ku koy def rek boo ñàkkee chance tuuti doo gudd fan ku sax di ko def boo ñàkkee chance tuuti doo gudd fan. Mhm. est-ce que doom bu juddoo ci njaaloo dina doon. ki ki ko jur lay doon. kiy baayam. ci baayam bi doon waaw déedéet kay du juru ko mënu ko doon. Mm. Mhm. parce que loolu tas na kër yu bëri aussi parce que mhm. donn bi. Mhm. maanaam tey bu nekkee yow da daf la am ci hors mariage. mu takk sa waajur ngeen am yeneen doom. mënu ko doon ndax juru ko te juddoowul ci yoon. déedéet. Oustaz ñu ngi lay jëfal bu baax. Mm-hmm. di kontaan ci teew bi nga teewoon ci Sénégal. Mm-hmm. donc lan ngay wax mm-hmm. jeunes yi. lan ngay wax ñi nga xam ne aussi ñoom ñoo nekk ci TikTok bi ci réseaux sociaux yi. di wane seen yaram. pour jaay li nga xam ne ne moom mooy seen bopp wala di jaay li nga xam ne ne moom mooy seen compte pour mu gën a yéeg. ñu tàggatoo waaw macha allah soxna si euh, li leen di wax rek mooy nañu nañu bay xel ni bu dee ndaw lu koy def jigéen nga da nga war a ami doom ëllëg. image yooyu dootul dootul dañ mi ngi ci mi ngi mi ngi ci internet bi donc nit ki say cër ak lu ak lu mën a xew war waroo ko jël di ko dugal noonu comme ça ñi nga xamante ne ñu ngi def safaan ngir lan am ay wala nit ñi bàyyi la xel jaru ko ndax abs de temps la rek temps bi bi nga koy bi nga koy dund yàggul da ngay nekk mag ëllëg da ngay ami 60 ans dangay ngay ami 70 ans da ngay yori ay sët ëllëg te image yi bu ñu koy génnewaat lu nekk lu rafet kon nit ki daal soo soo mënul wax lu baax mënoo def lu rafet li gën mooy nga maandu maanaam nga bañ def dara waaw fexeel daal ba booy wax nit ñi di la déglu li ngay wax na jëriñ nit ñi bañ doon safaan mais boo waxee nit ñi taf seen gémmiñ nga yaakaar ne yaa ca nekk nit ñaa parce que tam réew mi moo toll foofu Sénégal réew la boo xamante ni tey boo fi doon ren ba dëwoon di jàngale lu baax ñu néew ñoo lay bàyyi xel mais tey boo nekkoon ci safaan àdduna yëpp bàyyi la xel di la déglu loolu nag nit ñi ñoo tollu foofu mais tam loolu aussi du la jëmal fenn kanam donc li am rek mooy lépp lu waay di def wala nga koy wax na doon lu rafet parce que ëllëg dafay da daf lay daf lay indil problème yoo xamante ni dangay mujj di ko réccu te du ko jar kon nañu moytu di wax safaan wala def safaan ci internet bi. ci politique euh, planning ñu ñu bëri gis nañ ni léegi. avant bu njëkk ba. boo ko daan def sax dañ doon woo sa boroom kër. mu joxe li nga xam ne moom mooy autorisation am day nga am doom wala nga bañ a def dem nañ ba léegi tey boo nekkee ndaw même bu nekkee sax mineur nga mhm. mën nga dem jënd ji loo xam ne ne mën na tax nga bañ a am doom politique boobu aussi ñu bëri ñuy doon wax ndax l'islam ndax euh, l'islam daf ko daganal wala dagalalu ko. xam nga njaboot moom euh, du luy lor njaboot du luy lor te dañuy sëy pour yokk xeetu Seydina Muhammad dafa am yoo xamante ni politique la yoo xamante ni ci nasaraan si la jóge ñoom ñooy limiter seen seen njaboot nit ki nag bu ngeen dee sëy loolu warul li gën. mooy lu la yàlla jox ci njaboot nga téye leen li am solo mooy ku góor ki fexe ba dundal ay njabootam li war ci ñoom mu def ko donc loolu la mais li nga xamante ni dañu ko indil fexe ba ñu koy imposer loolu teguwul fenn. Mhm. est-ce que l'islam aussi am na foo xam ne ne dagalal na fa li nga xam ne moom mooy avortement ndax tey inceste mën na am dañoo xam ne ne ñoom ak seen seen baay bi leen jur moo jur seen doom wala seen ndijaay wala mu nekk viol donc instant boobu noonu ñu bëri ñoo xam ne ne dañuy dem di di di avorter est-ce que euh, ci ci sens boobu noonu l'islam dafa daganal avortement wala daganal. waa xam nga soxna si euh, doomu ala xaal bu la ko yàlla joxe jaaduwul nga nga dindi ko loolu moom tegawul fenn seulement que li ma wax léegi rek dafa am loo xamante ni dañ ñu ko indil fexe ba imposer ñu ko mais doom ji la yàlla dénk parce que avortement faat bakkal la rek amul amul lenn lu leen wutale. mais fexe nañu ba indil ñu ko ci anam yoo xamante ni am yuñ la ay principe yuñ la gëmloo ak ay mbir yuñ la gëmloo ba dugal ñu ci mais loolu wax dëgg yàlla bu fekkee da ngay sëy yàlla def na nga ëmb nga jaaduwul warul ak lu ci mën a xew jaaduwul doom jooju nga faat ko parce que faat bakkan la rek mhm. même ñi nga xam ne dañ leen violé ak ñëpp noo pour internet yi rek ñu xam mhm. ndax dañ dañu yóbbante woon aussi laaj boobu noonu souvent nag mhm. daana indi débat ci yenn tey buñ la violé wala wala nga am doom ci wàllu inceste mhm. war nga tey ñu am na ñu bëri ñoo xam ne ñàkk nañ seen bakkan waaye am na ñu bëri ñoo xam ne aussi mhm. dindi nañ ci ay biir donc pour ñu xamee ko noonu rek que l'islam mhm. daggaluñu ko su fekkee nag danga koy def pour sauver nit ki maanaam pour xam ni euh, génne ko moo koy sauver moom loolu du am problème mais dindi yàq biir moom daganul fenn. politique waaw xam nga bu fekkee dañuy wax comme Sénégal li ñuy politiquer moom déedéet. maanaam tey nit ki am nga droit sa réew lu ñu fay def parce que da nga fa am kàddu da fa am cër waaw am nga droit li ñuy li ñuy des ci réew mi nga bokk ci ñi koy décider waaw politique du weesuwul loolu ndax ni koy defee ñun ci réew mi moo xaw doy waar maanaam nekk ci mbir ngir sa intérêt loolu loolu jaaduwul lépp lu waay di def rek dangay jiital sa askan xool avenir askan wi ëllëg mais ñun nag li ñu tàmm mooy jàppale ma ma lu ma la jox campagnal ma ma am lu ma la jox wala ma dig la ay poste wala ay privilège loolu moo yàq suñu politique mais jaadu na fu ñuy fu ñuy fu ñuy defaree réew mi ñu bokk ci ñi koy defar mais mais bi bien sûr xam nga kenn ku nekk ak sa yéen ak sa intention c'est-à-dire loolu moom du fi daj ak yeneen yoo xamante sax mënoo toog di ko wax mais li am solo rek mooy yow nga xam sa bopp looloo ci am solo ndax am na ñoo xamante dañuy jóg uniquement ngir naka sudul noonu jéem la fexeel wala leneen ak leneen wala nit ya gis la topp la bëgg la tax doo xam yéeneem intention lan la donc li am solo rek mooy li la war yow rek def ko li la warul nga génn ci incha allah doo am benn problème mm. Mm.